ko bisimilahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp sëñ xaadim waaw sëñ xaadim tey li tax mu dugg ak yéen fii di leen wan ay bagaasam mooy maanaam tey jii di wane ni sëñ xaadim li muy def rek ndax parce que bëri na si ñi nga xamante ni dañuy dugal seen vidéo ci TikTok naan ay sëriñ lañ fekk duñu ay sëriñ na ci di bàyyi xel bu baax a baax a baax képp kun la sëriñ la na la wan lu leer li firndeel ni moom sëriñ la ndax parce que am na keneen kuy mbubboo sëñ xaadim borom tawféex sa du moom sëñ xaadim borom tawfiq numéro moy 77 490 54 05 koko ngi ci nax ay nit nak di lek sen khalis sëñ xaadim borom tawfiq bobu du man man may sëñ xaadim borom tawfiq dëkk ties képp koo xamantene rek soxla nga ma ba mu woy si numéro boobu muy 77 490 54 05 di ma jot. képp koo xamante ne am nga lu la yitteel man maa fi en distance appel vidéo ndax parce que li tax may def appel vidéo boobu pour wane sama bopp pour wane li def wane li def ne ragaluma ko sëñ xaadim def ragalu ko lu leer la ko teg ci suñu borom lu leer la la teg li def naxewuma def ma la toog sa képp ku ci bëgg am la jaaxal ñëwal seet sëñ xaadim fii wala nga ñëw guy ko fekk sëñ xaadim ci guyam gi wala nga ñëw fekk sëñ xaadim ak i jinneem mu toog ak ak jinneem sëñ xaadim su leer lay dox kon damaa bëgg mbokk yi képp koo xamante ni am nga jafe-jafe ñëwal seet sëñ xaadim mooy li ma yàgg di wax moo xam nga yor moo xam yoroo ñëwal seet sëñ xaadim ci kàttan suy borom ma jàppale la sa yàlla rek tax sëñ xaadim si lu mu àndal ci lu wóor la kon ñëw leen seet sëñ xaadim mu jàppale askan bi rek moo ko tax a ñor képp koo xam da nga bëgg a seet incha allahu rabbi boo dikkee sëñ khadim na la jàppale fekkee seet lu nga bëgg bu dee da nga bëgg a ñaanlu loo fexee loo mënti bëgg ñëw seet sëñ khadim ci kàttan suñu borom dina la jàppale ba nga gis sa bopp bu dee dañ la liggéey bu dee da nga da ngay lijjanti place ñëw seet sëñ khadim sëñ khadim lu leer lay dox dama ne mbokk yi naxe amu fi boo dee da ngay xëccoo entreprise wala looy mënti xëcc ñëw seet sëñ khadim sa aajo faju si loolu rek laa am lu ma leen doon wax jërëjëf bu dee seet à distance toogal fa nga toog boo mu nekk fa bitim réew toogal fa nga toog ma seet la eh yemal yow yemal wàccal acca nga yem dégg nga fekkee distance la ci kàttan si borom ma seetal à distance seet à distance bi maa ngi koy defee 2000 francs muy ñeenti téeméer da ngay toog fa nga toog ma seetal la si kàttan si borom jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf